ci li nga xam ni moom nañu bëgg a mel mooy teg ko ci yar ak teggin may nuyu kilifa diine yi di leen ñaanal di ñaanal ñoom ñëpp ñi yàgg fi te wér sunu waajur yi nekk ci islaam ñu nekk ci weeru yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu leen di nokkeel ñi nga xam ni nekkuñu ci diine boobu ñu leen di sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaamal dool Sénégal bu mu mënti nekk jàmm ak salaam tey jii dégg nañu ay xew-xew muy accident bu metti bu am bi ñuy ñëw ñaanal nañ leen bi ñuy tàmbali dafa jaadu ma ñëwaat ci masaw senegal yëpp ñu déggit démb xawma barki démb am na ay xale ñu doon jéem a génn réew mi ci anam yoo xamante ni rafetul baaxul mu it nattu yu leen dal ñuy ñaanal ñi nga xam ni jóge nañ ci ñoom ñëpp yal na leen yàlla yërëm te xale na àjjana loolu yëpp di ñu woon sunu responsabilité sunu cër ndax lu dal benn sénégalais jàpp ne ni ñëpp la dal bu nekkee bànneex la dañ ko war a bokk bu nekkee safaan ba ñun ñëpp dañ ko war a méccitu ànd ko saafara may nuyu kilifa Benno Bokk Yaakaar yëpp di leen di leen di leen jéggalu di leen jéggalu dina ci ñëwaat léegi ndax xew-xew bi comité d'initiative bi dem leen a bàyyi ak lépp li ngeen fi gis yëpp ci wàllu organisation li ngeen fi gis yëpp ci wàllu mobilisation seen pas-pas seen yéene ak seen bëgg Sénégal jëm kanam moom lañ ci def Benno Bokk Yaakaar looloo tax mën sam bopp woowuma ci kenn invité wu ma kenn def nañ ko ñëw ngeen maa ngi leen ciy jéggalu waaye ni ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan ku nekk ci yéen dinaa sol sama dàll dem ba ci yow wax ak moo xam moo xam moo xam ñu déggoo ci initiative wala ñu bañ ci déggu mais sama wareef mooy ku nekk ci yéen ma tàllal la loxo wax ak yow Benno Bokk Yaakaar yëpp dinaa ko ci def def ko aussi ci alliance pour la république ay la yéwén ñi ëpp ci yéen ñi ëpp ci yéen jàpp nañ ci bu baax a baax loolu mooy dëgg it ñëpp ci yéen dëgg la balaa élection yi di am ci campagne amoon nañu tuuti jafe-jafe loolu yi dëgg la mais loolu pour man mi ngi ci ginnaaw pour man loolu mi ci ginnaaw mës naa ko wax ci benn ndaje secrétariat exécutif u wax naa ko ci benn ndaje. benn Bokk Yaakaar ku nekk ci ñun li nga yéene sa moroom yàlla na nga ci jiitu dafa naa ne bi may wax loolu ñu bari ci yéen yéen a ngi toogoon ci loolu laa nekk ba tey ci loolu lay dox ba tey moo tax lu coow li bari lu commentaire yi bari duma ci wax ci sama wàllu bopp Sénégal benn la ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay kon nañuy fàttaliku nañuy fàttaliku li rafet ndax loolu mooy jëmale Sénégal kanam leneen lu nit mën ci def rek nañu jàpp ni njuumte la juum nag nit rek lay waaye am na ci benn ba ñaari mbir yoo xam ni mën la concerné nag foog ma wax waaye du ma ci xuus ñuy wax dañuy dandal élection yi sama position dama jàppoon ba tey di loolu laa gëm baaxul woon ci Sénégal amu ci beneen xalaat lu dul baaxul ci Sénégal na ma ko waxee woon en décembre deux vingt et ci benn secrétariat exécutif tek maag samay morom yu bari ñuy doog a génn ci gouvernement ma ne leen réew mi nuroon naag lu dal dama koy nettali parce que ci mbooloo laa ko waxee woon réew mi niroon nag lu dal mais lii di dox buñ ko artuwul gën ba bari fii ak ñeenti weer réew mi dina am ay jafe-jafe yoo xam ne dinañu metti ñun ñëpp lu mel noonu nag lu mel noonu nag laa doon tiit ci senegal moo taxoon ma jàpp ni dandal élection ñu def ko ci jàmm ak salaam ku gañee gañee sénégalais yëpp jàppale la bàyyi la nga liggéey jàpp naa ni loolu moo gën ci Sénégal loolu moo ëpp suñuy jëm loolu de def naa ko dégg naa it

du ma def du ma def lu yàq réew du ma def luy boole réew